waaw jërëjëf euh, mbokk yi niñ leen ko waxee rek euh, sànq ñu dugg ci daara ji ñëw fi nga xam ne moo di directrice des études di soxna maam aw dem ngir ñu waxtaan ak moom rek ci lenn jëm ci njàng mi nga xam ne moom lañ fi amal ak euh, maam jaara yi fi nekk te li seen lim daanaka toll ci juróomi téeméer soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu bala nga nuyu mbokk téléspectateurs yi laata ñuy tàmbali waxtaan wi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi wa sallama taslima uh, maa ngi leen di ñu di leen ziar mboolem ñi nga xam ne ñooy déglu di seetaan tamit di leen ñu yéen ñi fi teew tamit te wax bu yàlla bi teew di seen première teew ñoo àndoon ci liggéeyu daara ji ba si fii ñu xam leen bu baax a baax seen pësteef seen taxawaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar man la soxna maam Awa Deme directrice des daara maam Jaara Bousso Euh, yéen lan ma doon seen liggéey ci ci daara ji. Euh, ñun suñu liggéey ci daara ji mooy jàngale ak yar tout tànk yoo xam ne ci juróom benn at lañ ciy jot wala ci juróom ñaari at ñu nekk ak ñoom fii ci daara ji ci diiru fukki weer ci at mi bàyyi leen ñaari weer ñu dellu seen kër ci seen njaboot dallu ñun tam ñu dellu suñuy kër dem dallu ji. kon jàngale ak yar lañ fi def. yar googu tamit nag ngeen ko organisé ndax ku ne tu tànk faw am lu bëri looy war a def ci moom ci jubbanti surtout jigéen. waaw euh, léegi li ñuy li ñu xam te waroon ko xam bu yàgg waaye léegi ñi lañ ko soog a xam mooy jàngale kese dafa doyut euh, moo tax dañuy wax sax yar waaw ñoom dama ñuy wax ne ministère bi nga xam ne moo yor sax njàngale. dañuy wax ne ministère bi yor yar yar bi kon yar bi moo am njàngale bi euh, njàngale mi dafa dugg ci biir yar bi loolu su amul rek njàngale mi mën nañ wax ni euh, na mu war a mel dina manqué du am njariñ moo tax euh, ku ne xam na ne Serigne Touba bàyyi woon na xel lool ci tarbiya yar yar nit ki ba mu xam boppam boo xam ne boppam day war a xam boroomam xam ne andi fi boppam te du du bàyyi fi boppam te ëllëg am na fu mu jëm boo ko defee yar boobu ci la daan tàggat nit ñi ba ba nga xam ne fi mu nekk nii kenn ku ne xam na ne Serigne Touba euh, waa njabootam ak saadi xam yi kenn ku ne xam ne ak kenn kon foofu la ñuy joxañ rek pour wane ne yar mooy li nga xam ne mooy li am solo. te euh, bu ñu waxee ne xale bi dañuy am euh, bu amee juróom-benn at lay lay ñëw ci suñu loxo euh, wala mu am juróom-ñaari at kon mën nañu wax ne ci ak dundam dina ci nekk ci suñu loxo ci diir bu nga xam ne moo ëpp importance ndax fi la xale bi war a ràññee xàmmee fi tàmbali fi di jàng kon moo tax yar boobu tamit ah ñu ngi ci bàyyi xel suñu kéemtalaay kàttan boole ko ci njàng mi comme ni ma ko waxee Ah, ndax fu ñu fi mën a nekk rek wutal nañ leen ku leen di saytu ca foofa ngir di leen mën a bàyyi xel ci seenu màgg ndax xale eh, foofu ci eh, âge boobu mu toll fi lay màgg te màgg gi dafa war a ànd ak màggu léppam eh, xelam war naa màgg aw yaramam war naa màgg yaram yi lañu gis muy màgg ñu xam tam xelam yi dina màgg ndax dina xam lu ma xamul woon démb bis bu nekk waaye tamit ruux gi ruux gi war naa màgg muy yar boobu ñu wax noonu ba tax na ah, daara loolu mooy mission bi nga xam ne moom la def ci am nation mu daara ndax bu dee ci biti yar bi dafay jafe ndax lu nekk ànd na ci yar bi mbedd mi mi ngi ci yar bi ecole ba mi ngi ci yar bi ndax école ba dañ fay xamee sax nag wax dëgg yàlla mënta ñàkk waaye dañ fa daje ku nekk. kenn ku ne jóge fa nga jóge and andi sa nga mel kon xëy na dana wàllante ci biir wala ci biir kër yi sax ndax kër yi sax mënatuñu yar léegi ndax kër fi dem bu nekk am na lu fa nekk loo xam ne kenn mënu ci dara te lépp lu nekkoon ci biti mi ngi ci biir foofu te kenn ku nekk amatul sañatoo ci koo bañ ndax mi ngi sa kër muy télévision bi ak internet bi mel noonu am na njëriñ waaye am na coté boo xam ne tamit am na lu mu damm ci yar bi kenn du ko sikk sàkk su ko defee nag kon ñun fii ci daara ji daara ji xale yi loolu loolu duñ ko gis duñu seetaan télé duñu yoruñu internet boo xam dañ cee nekk di connecté moom daal ñu ci biir daara ji nekk fi ak seeni yaay seeni papa comme da seen yaay seen papa ña nga fële ñu ne fii waaye am nañ fi ay yaay am nañ fi papa kenn ku ne ci ñoom tam di ba nga war a jouer ci ku yoroon doomam am fi ay maam ñu yor seen néeg waaye am fi ay jàngalekat li ëpp solo xam ne ki xale bi moom ki koy jàngal moo ëpp solo ci moom jàngalekat yooyu kon yar bi ñoom ñoo cee ëpp solo ci ñu ngi koy def seen kéemtalaay kàttan. kon mën nañoo wax ne xale bi dina am fukki weer yi mu nekk ci barab boo xam ne lañu koy jàngal ak lañ fañ koy orienté ku fi jëm dara du ko rax defe naa bu fa jógee ñaari weer ya muy dellu ci këram euh, xëy na fukki weer yi moo ko gën a bari ba tax na. Euh, li ñu def ci moom mën naa sax sax goo xam ne da cee wàññi ko du bari kon environnement bi ci boppam moom mi ngoo yar muy environnement daara surtout daara boo xam ne internat la fii internat ci dëkk ci kër gi lañ dëkk fi la ñuy gis ñu leen loo xam ne day jaxase seen ab yar mu des nag ñaari weer yi nga xam dañ ko yóbbu dem ci seeni kër foofa dinañ fa am tuuti jafe-jafe ngir li ñu daawul gis lépp dañ koy gis fiñ daawut dégg dañ koy dégg fiñ daawut dem dañ fay dem te li ma ko waxoon ci njaal benn la rek kenn ku nekk jaboot tey sa kër am na fa loola jaaxal loo xam ne la la ko yóbbee mooy sopp ko jamono jëm ci ngay dëkk loo xam ne neexu la te sañoo koo bañ ndax bu njëkk bi yar bi ñëpp dañ daan bokk ci yar bi kenn rek daawul yar sa doom rek yam ci léegi kenn ku nekk sa doom bopp ngay ñemee yar ñu woo yar doomi jàmbur kon yar bi xat na ak loolu ma wax ne moo ci rax muy lu kenn mënta bañ léegi kon diggante ñaari weer yooyu tamit xëy na ñii seetaan di ñu déglu te am fi ak njaboot danañ ko gën a euh, dénk danañ leen gën a dénk loolu ngir ñoom tamit ñu jéem a jubbanti ko tuuti euh, la seen doom yi indaale ñu jéem koo xool gën koo defaraat taxaw ko ba bu ñu dellusiwaatee fekk fi li ñu fi bàyyi woon dara bañ caa euh, manqué. wala la ci manqué du naqaree defaraat euh, soo waxee na nag ñu ngi ci ñeenti miir yi ñu wër nañu gis ñu dara dégg ñu dara déedéet euh, kon boroom xel mi mën na ne ah kon de xëy na ñoom doxinu àdduna ak li liy jàll duñ ci mën a xam dara waaye nag suñu borom dafa def ñu leen fi yore ah am nañ ay jaar-jaar yu ñu jaar yoo xam ne dinañ mën a teg nit ki ci programme boo xam ne dina yeewu. dina xam àdduna ah, par rapport jaarale ko ci alxuraan ji jaarale ko ci diine ji ndax islam ji rek moo gën a civilisé lépp luy civilisé boole ko ak expérience bi nga xam ne am nañ ko ba jaar fa ak si ba fii su ko defee ci biir loolu ah dinañ mën a def ay programme yoo xam ne nit ki du génn rek di mel ne ko jommi ci biti waaye nag yar bi moom dara lu koy taqal du ci dugg waaw loolu am na solo lool muy yar gi ndax euh, xam-xam soo ko amee te yaru am na lu ñu ci wax waaye ba léegi li jëm ci seenu nekkin fii nii ñoom maam jaara yi ndax ku ne xam na ne tout temps que des fois mu laaj ñu létt ko toppatoo ko ci wàllum euh, solinam ceetam ak yooyu yëpp loolu tamit naka lañ ko organiser fii ci daara ji. waaw euh, moom daara ji dama leen di wax ne. sëñ Moustapha moom sëñ Mouhamadou Bassir dañ koy gën di fàttaliku di ko ñaanal. Hmm. Euh, daara ji daara moderne la lépp loo fi gis nii rek tey mu taxaw nii doon lu fi bees hmm. li mu doon mooy dafay nekkoon ba pare ñu yokk ko ndax xam nañ ci ne sëriñ Moustapha ak rakkam yi mu àndaloon ci liggéey bañ koy door lépp lu mën a doon la teg nañ ko fa mu war a tege jàngat nañ ko hmm. ci jàngatin boo xam ne daara génnu ca waaye moderne génnu ca muy daara boo xam ne da ngay jàng alxuraan nañ ko doon jànge di ko mokkal lañ ko doon mokkale boole si leneen mooy di ko tajwid ba nga xam ne nii lépp lu ca war ci ne ko borom waxee ko nee jànge dañ koy jànge kon kon daara lañ yor waaye ci biir tamit jàngataane nañ ko ba nga xam ne nan lañuy ñuy yor daara ji ba fexe ba jëppale koog jamono ba yu diis seen nekkoon ci daara ba ñëpp di ko daw mu mu wàññi mu jeex ak itamit diisaay ba nga xam ne moo ci amoon ba jigéen mënu ci woon a dugg ñu dindi ko ba jigéen man cee dugg kon Serigne Moustapha ak ñi ak rakkam ñoom dañoo tëral plan boo xam ne plan boobee moo fi nekk ba tey waaw plan baa fi nekk lu ci nekk rek dañuy gën a yaatal di gën a defar saa soo xëy yaa ngi gën a am xam-xam xalaat bu bees bu ko gën a yokk waaye la fi nekkoon la fi tëddoon ba tey moo fi nekk muy Serigne Moustapha jàngat na mbir mi teg na ko ci yoon ko ba tey ñamu xale yi ñuy jëfandikoo sax bala ñu ko daan def dañ koo jàngat dañ ko jàngat ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu euh, nutrition ci ci ci ci ci ci xam-xam ñu jàngat ne xale bi war naa jël nangam ci nangam jël nangam bu fekkee mu bëgg ngeen màggu sell ku bëgg màggu sell ci xale. kon du ñu togg noonu ku bëgg euh, màggu sell. xale bi mënut a ñàkk nàngam ci protéine. mënta ñu ñàkk nangam ci calcium mënta ñàkk nangam nangam yooyu ñu tënk ko ba nga xam ne dañu ah kon kat xëy na ko def tuuti meew def ñebe def ndawal def nangam di nga mën a am composé yooyu yëpp ci yi nga xam ne mënta ñàkk ci doomu aadama kon loolu ab jàngal la ci woon jàngal boobu lañ topp def ko menu bés bu nekk ak lañ ciy togg boobu tey changé wut bés bu nekk am na menu boppam añ ak reer boo xam ne du day waroo te loolu lépp day nekk ci biir te dana doy tamit ba nga xam ne xale moom ala kulli xaalin la koy sonal du doon ab xiif xanaa coono jàng ak mokkal waaye xiif moom du du ko sonal ndax dañuy desal bay maye. waaw sànq wax nañ ko ci wàllum litti géeg yooyu. waaw ci wàllu noonu ni ma ko waxee noonu ci wàllu euh, ñam wi noonu la demee ci wàllu fóot mi am na leen di fóotal ñaari yoon ci par semaine altine ak alxames am na ñoo xam dañ leen di toggal waaye weeru dee tamit am na ñuy jël ñoo xam day ñëw kenn ku ne loo loo bopp yoo létt rek ñu fay la ko waaw bis boo ci léttee ñaar wala ñetti bopp ñu fay la kenn ku nekk la nga ca la nga ca def. nga xam ne tey loolu lépp boo ko dajalee tey mooy li waroon am si seen kër yi rek euh, yor nag am mbooloo dafa yombut yor mbooloo dafa yombut te ku nekk xam na ne boo yore kenn ñaar sa kër ñett sax. pour nga defar ko ba mu war na mel na mu war a dana la xaw a jafe surtout nga yor ci. ab lim boo xam ne macha allah euh, takku na tudd nga ko sànq te ñëpp daanaka maase te sax euh, dangaa boole ñaar mooy dangaa doon jàngalekat bi doon doon yaay ji waaw loolu mooy problème mu internat maanaam daara joo xam ne nit faa nekk ci biir xale yi loolu mooy problème bi mooy danga jàngale waaye boo wàccee dangay nekk yaay wala nga nekk papa kon su nekk yaa ngi ci biir moo tax. waaye defe naa ne ñi ñu ko seqal muy waajur yi ak ñi gis ñëpp ñëpp di dund ànd ak ñun ci loolu euh, xam nañ ni moos euh, sëriñ bi lim mën ci xale yi keneen mën ko waaw du yaay moo ko mën du bàyyi moo ko mën ci yërmande ji ci taxawaay bi ci saytu bi ci lépp te it euh, feeñ na tey ji bi ngeen ñëwee ci mbaar mi fekk fi sëñ Mouhamadou Mountakha gis ngeen ni mu mel ci ñàkk jot gis ngeen ni mu mel ci eh, tolluwaay nga xam ne fan yii yëpp dafa fatu woon ba bëkki dem rek altine la génn waaye li ko ñor ngeen daal gis mu daal ci jublu rek mooy daara ji ñëw ci daara ji gis ñu ci bëtam yu sell yu yoo xam ne yu am yaakaar yooyu te noonu la ko daan defee bu nekk bu xalifa général des mourides noonu la ko daan defee tey jii moom anoon na ko wàcc ne amul jot waaye dafa njëkk dafa génn rek ne day njëkk ñëw ci daara ji pour. seet si xale yi seet si ñun santaar te waxam ji mu wax dafa war a tax ñun ñu gën a góorlu ndax waxi euh, làmmiñ dafa am waxi xol am waaw man euh, waxtaanam tey dama ci jël lu baree baree bari sama xol waaw waxtaanam boo ko dégloo teelu ko xam ko xam nga ne lépp lu waay nekk suba ba ngoon ci lu baax gërëm na ko waaye li gën a gërëm mooy jàng ak jàngale surtout alxuraan loolu laa ci jàngate kon li mu dëxañ ci biir xolam dañu ko junj rek dañu ko junj dañu ko junj dañu jaat loolu kenn xamul la mu doon ci aw moo tax ñu gën a santaat suñu borom subhanahu wa di gën a fasaat jom fas yéene fas suñu jom góorgóorlu ndax cant googu moom mooy aw bu la ci yàlla boole faw da ngaa war a suñu sant suñu borom sant ka la ci boole. waaw soxna si loolu am na solo lool muy euh, nemmeeku nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha nemmeeku na ko daara ji teyit it euh, mën nañ ne daara ji lépp lu fi nekk rek moom moo ko fiy def waaye it am na ay mbokki taalibe yoo xam ne saa su ne ñu ngi jëf ci daara ji mënuñ ko waxtu duñ tudd soxna Aida Ndiaye Badaloo mi nga xam ne jàmbaar la woon lool ci daara ji rawatina jamono bi nga xam ne jamono yu màggal la xam naa ay kàddu yu seede yoo xam ne da nga ko seede ci moom laataa ñuy. waaw Eh, képp kuy wax ci daaray maam jaara ba daaneel rek te tuddoo soxna Aida Ndiaye xam naa ne sa xel moo fatu waaye ñun bi ñu ñëw fii ci daara ji 2005 ah di njëkk a inscrire ku fi ñu fi njëkk a commencé jàng. Hmm. ñu inscrire fii ci daara ji fa lañ ko fekkoon ak i bagaasam keroog moo ñu jox ñu reer. Hmm. ñu nag mboolem xale yi te noonu la ko dëkkee woon tamit. ba tey su yàlla dogaloon mu nekk ci kaw suuf kon di ko fekk ci daara ji mën na ca waayu takku di toggal xale yi lu leen neex nag la mm-hmm. leen di toggal mm-hmm. bu set mu laaj leen lu ngeen bëgg ci laa gis ci moom mu bëgg soxna jaare mbëggeel goo xam ne ñu sax def ñu yéem mm-hmm. waaw soo masaan asu ci daara ji ba kenn tudd xale day boot di wàcc di uuf ñu tasalloo ci néegam bi ba doo sax yow sax doo mën a nooyi boo fi jaare pour jàll waaye boo xam ne bàyyil xale yi fu mu dem fan tudd yóbbu fa tur soxna jaara mm-hmm. lu mu fa am indi ci daara ji lu mu am indi ci daara ji daan na fi ay fukki fan ak juróom ci daara ji ci mm-hmm. màggal gi indi ay nagam yu bare ki gile moom di ko rey ak yeneen a yeneen yoo xam ne mm-hmm. moo ko sasoo woon ci daara ji mu doon lu am solo dama wax naa ko sax ci euh, euh, kii bi nii euh, seen kii bi nii ndax ñun ñoo bokkoon nekk fii ah, bokk fi ñëw te mu doonoon sama xarit di sama yaay daan ma wax itam ay ay kàddu yu am solo yoo xam ne daana ma encouragé ci li ma nekk. bu baax moo tax dañ ko ñaan suñu borom waaye nag ku gis euh, ni ko sëñ Mouhamadou Mountakha taxawoo. Mm-hmm. keroog bi bi ñu wóoree ne xibaar bi am na dafa daal di jóge Touba rek jiit jiitle jàngalkat yépp mm-hmm. ak maam jaar yi mokkali yépp ak ak njabootu boppam yépp ne nañ dem Poroxaan wàcceel koy kaamil balaa xabaar bee siiw. Mm-hmm. bala ñoo def lenn ci fi àdduna ñu def loolu. ñu ñëw fi wàcceel ko kaamil yoo xam ne xam naa ne. mën na su ko lim. ndax juróom ay ay atam lañu waxoon waaye ëpp na atam ba xaw koo ñaar ca. ak yeneen yoo xam ne ay xasaari Sëriñ Tuubaa yoo xam ne dañ ko ko wàccee keroog ci bis bi. ah loolu nag dafa mel ne ah ñi ko am bariwul lool. dëgg la kon nag xëy na foofu danañ fa mën a xool ne ku def lu baax lu nekk ku nekk da am lu baax. Mm-hmm. foofu fii fii rek la feeñee nii. Mm-hmm. waaye fa ñu jëm tamit lay gën a. amee njariñ. fa mm-hmm. lay gën a amee solo. kon soxna Aida ñu ngi koy ñaanal bu baax waaye nag. Ah, sëñ Mountakha wax na ko léegi muy daayira yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoo gàttandu sëriñ Moustapha mm-hmm. li muy wax lu am solo la sëñ taxaa ah, gàttandu mooy koo xam ne dafa jëm si woon ci accès gu sax nga gaaw yow dem mm-hmm. fekki ko dangaa daal dem fekki ko mm-hmm. wax na ko sànq ci ba muy tàmbalee wax leeralaat ko nag itam ci biir waxam ba mu gën a leer mooy man sëriñ mu Moustapha bi ma bi ma yewoo ngir ma ñëw ci daara ji booba fële la woon ci géejawaay mhm. sëriñ Moustapha Mbacke mi muy toog li ma wax mooy ah bi mu sàkkoo ci ma ñëw fii mhm. la ma waxaal ne ma ah soxna jaara kat dama ko faa defal kër boppam mhm. ba noppi def ko daara ndax ba fi nekkoon dana fi am kër dina fi am te këram daara lay doon bëgg fa àndee ay ñu jàng alxuraan ndax xam-xam ak xam-xamu àdduna daal di ci waxal waxaa li tax ma def ko nag daayira soxna jaara ñoo ànd ak man ci liggéey bi di jël seenu ñaq di ko def ci soxna jaara ma boole ci sama ñaq di ko defaat ci soxna jaara loolu moom man mën na ko wax man ma wéet moom ak sëñ maam sëñ Moussa Yane Mbacke kon man daal naa xam ne kon daayira yi jàmbaar lañ te dund naa ci loo xam ne tamit màggalu poroxaan laa koy lay gën a mat seere tey boo ñëwee ci daara ji màggal Poroxaan tey da fi gis ay daayira yoo xam ne seen pësséef seen taxawaay takku lool kenn ku ne xeeboo dara lu waay am andi lu waay am andi ba nga xam ne lépp lu ñu soxla ci daara ji dañ koy stocké ba nga xam ne at mi moom daanaka dootuñu ko jëndati mm-hmm. te lool dafa mel dafay gën a yokk ci jamono yi ba fi nekk ni jamono yi kenn ku ne yaa ngi woote man damaa bëgg ñu séance lu ngeen soxla mm-hmm. waaw ba ngay wax soxla yi nga xam ne moo gën a ñor ci doomu aadama mun koo ñàkk ba nga xam ne wër na dina am ba des. Mm-hmm. nga wax yenn soxla yi nga xam ne facultatif la waaw da ngay dem ba wax ay soxla yoo xam la. Mm-hmm. mënoon na sax ñàkk ci ab donga wala sax nit kuy kuy war a kii. Mm-hmm. waaye dañuy far di ko wax. nga xam ne lépp la ñuy indi fii lépp la ñuy indi fii. fédération daayira yi kenn mënu leen a ñàkk sant day fédération yu mag am na fi. waaw fii ci Sénégal moom am na yu ma fi xam yu bari. waaw ndax boo ko xoolee daanaka ci liste bi may jox takku na. ñi ci ñi ci gën a ràññee tamit bokkoon ni soxna Astou Samb bi nga xam ne yéen a bokk fa ngeen ji seen euh, Darou Minam waaye soxna Daba mu soxna mu sëñ Mamadou Fadal mu sëñ Fallou Basirou ku ci ràññeeku la soxna Astou Samb Mbacke mu sëñ basiru ku ci ràññeeku la lool ki ñu wax sëñ Basirou Gueye itam défoncé xàmmee naa ko ci lool bu dee ci biir réew mi ak yeneen daayira yoo xam ne fédération laa wax yoo xam ne ak ñoo xam ne du ñu ay fédération par daayira la ak ñoo xam ne sax yoruñu daayira la waaye dañuy def ci daara ji takku na takkuwaay boo xam ne par individuel lay doon loolu yëpp dama leen a xàmmee ci daara bu doonte am naa soxna Bali moom sañ sëñ Muntaxa Bas moom itam waxuma la sax ci réew mi waaye bitim réew waaw soxna Bali bitim réew France bu yàggul rek fédération bu mu fa am. indi nañ fi euh, euh, xéwal yu takkoo takkoo takku yoo xam ne ñu sax daf ñu wax yéem sax far. te it boole ci di di di indi xéwal ci daara ji bi taxaw taxawaay boo xam ne. Euh, taxawaay turandoom ndax lu ci waaye def nag dafa mel ne moom nga koy defal ndax moom mooy soxna jaara soxna Baali mun taxaa ñu ngi koy ziara bu baax hmm. au passage di ko sant bu baax di ko ñaanal bu dee ci bitim réew tamit daay fédération loolu la fa mel ba fa lool xam nañ ci te bu ngeen xoolee centre bi nii tey euh, école bi bu ngeen doxantoo tuuti rek gis lu fi bees yu fi bees yoo xam ne ci jéego yu mel noonu la. mel na sa poste de santé be nga xam ne gis nga waa Amérique ñoo ko fi def ak yu mel noonu kon daayira yi euh, wax dëgg yàlla ñoom jàmbaar lañu ca tàmbali bi ba léegi ñoom ñoo ko ca tàmbali bi ba léegi carte seen carte yi ñu daan wecc ko ñeenti téeméer par at ak yeneen at yi ñu daan joxe ak seen góorgóorlu. ñu agsi daara ji fi mu nii ba tax tey yeneen doole ko ci mu sëñ Isaaxa mi nga xam ne sëriñ bee ko wax ci sunu kanam daara ji ah sëñ Moustapha daana la ci xaar ah ginnaaw ak si nga nag léegi ah noppalu ko ci liggéeyub réew mi ah, faw kon daara ji mi ngi noonu nga ànd ko ak say doom say sët yi ci nekkoon ak say njaboot gépp ngeen taxaw ci hmm. boobu tamit lañ ci gis soppi ko nag ay la yéwén dafa nekkoon moom mu ngi doon dox dara manqué wut. waaye Serigne Moustapha dafa bëggoon ay junni di fi nekk yu topp kon loolu faw dafa jar di yaatal jar yëg yëgle ba nit ñi mën cee def ci biir yëgle bi yaatal bi nag yëg nañ ci daara ji ak soppiku soppiku maanaam ak ak ak ak ak ak euh, jëm ci kanam laay wax ndax li fi nekkoon moom lu fi dëgëral la te dara manqué wu ci ñeent téeméeri juróom fukk moom ci dañ ko tracé woon fii amul lan fi mas a manqué par ci ci lépp nag waaye nag yaatal gi ba war a mën a dolli war dafa gën a taaral waaw war a war a àgg fa sëñ saa bëggoon a agsi ci euh, ci espace baa ngi fi yooyu yi mm-hmm. tamit sëñ Isaaxa ci parrainage bi ñu ngi ci sant tamit ñi nga xam ne dugg nañ ci loolu du ci yëngatu mm-hmm. waaw soxna Maodo bala ñuy ànd ko sëñ Cheikh Fatma sëñ Cheikh Fatma euh, passage ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom sëñ Isaaxa ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu koy def ànd kook Serigne Cheikh Fatma ci wàllum communication bi mu jëm ci euh, fondation Mame Diarra bi ak lépp loo xam ne dafa jëm ci Porokhane soxna si mu mel nii euh, waxtu yi daanaka léegi mat mais laata ñu yëkkati jotaay bi ñu laaj la li jëm ci ginnaaw tànk yi bu ñu matalee seenum jàng ndax dañ leen bañ bañ leen Touba ñu jàng ñu ñu tarifa ci jury bi leen di déglu ndax dañ leen jox lijaasa ay neexal wala. Euh, ni mu demee mooy bu ñu saytoo xale bi ci daara ji. topp ko bi mu inscrire di jàng ba keroog muy ñu ne mokkal na am na nattukaay yu ñu koy natt am na ñu koy natt tamit am na ñu koy di ko xool ku ñu wax sañu aafi ñang ci la bokk ci natt natt bi xool ba xam ndax kii mënees na ko présenté mu dem examen wala déet suñu paree nag jël ñi nga xam ne xool nañ ne ah ñi de war nañoo dem examen ñu dem examen examen fan la du nekk fii ci daara ji Touba lay doon am na commission bu fa nekk. boo xam ne sëñ bi moo leen ah, boole ak ñun ngir ñuy taxaw loolu ndax nit ki mënta seede boppam ñoom sëñ Muntaxa Pakala nga xam ne sëñ bee ko yar moom moo ko yor foofu ak ñam ko àndal sëñ Moustapha Diop Ndar sëñ ab euh, sëñ Abdourahmane sëñ ñoom ñëpp ñoo ko yor ak ak sëriñ Amdi Diop euh, sëñ Bakki Abdourahmane ak ñeneen ñoo xam ñoo leen ci jàppale ci ay sëriñ daara ñoom ñoo leen di déglu foofu minal baqara ilan naasi ilan naasi minal baqara ilan naasi su ko defee buñ taree ba noppi ñu daal leen di ñoom ñoo jiitu buñ taree bañ saxal seenu mokkal euh, ci seen lañu rëdd nga xam ne euh, defe naa ne ku ca mokkal ku ne ne xam ne ne mokkal nga ndax euh, alxuraan ni mu toll ku ci boo ci gagul ci taxawoo ci lu bari loolu kooku dañ ne mokkal la ñu daal di daje nag bis bi nga xam ne ci dañu war a def cérémonie bi ñëpp dañuy jóge ci daara ji daal dem fekk leen fa sëriñ bi ñëw wala muy yabale ñu daal leen di jox seen i ijaasa foofu ijaasa yi moom ijaasa ku mokkal alxuraan sëñ taxaw moom moo koy signé ci loxo loxom bu sell sell bi jox la ko ñu boole si suñuy cadeau yoo xam ne xëy na yu ci bari fii lañ ko doon defaree ci centre bi ak yoo xam ne dañ ko ci boole ngir terale ko soxna jaar yi nga xam ne génn nañ ak seeni i kaamil seen i mbokk seen i njaboot ñëw nangul si leen ko. soxna seen kàddu ngay tëjee jotaay bi. waaw li muy tëjee ci jotaay bi nag mooy ah liggéey bi moom wax dëgg yàlla da léeg-léeg ñun dañ ci gën di fés nii rek ndax ñoo nekk ci bopp beeg yooyu waaye damay wax ne jàngalekat yi nga xam ne ñooy uuf xale yi ci seen xalqaat yi ñoom day defe naa ne ñoom liggéey bi ñoom ñoo ko def. ñun dañuy dem di saytu di xool di di ndax lu mën a doon mënut a ñàkk organisation booy def boo xam ne mooy tax euh, yëf fi jaar ci yoon waaye nag jàngale mi dëgg-dëgg nag ñoom jàngalekat yi ñoo koy def waaw. ko defee ñoom kon dañ leen di war a tudd fi ñu toll di leen sant di leen gërëm leen gën tamit doole pour ñu gën a góorgóorlu waaye tamit ñun bi ñëwee ci daal ji fekk nañu fi ñu àndal ci liggéey bi ñoo xam ne euh, wax dëgg yàlla sëñ Moustapha euh, ñoom suñu diggantee ñoom. ñoom ñoo fa doxoon ñu fondation Maam Jaara ñu gën ci ràññee sëñ Moussa Mbacke ci la bokk ak ku ñuy wax sëñ Ousmane Thiam Ousmane Thiam waaw war nañ fu ñuy wax rek di ko ci tudd waaw ndax daanaka moom du bëgg ko tudd du feeñ waaw waaye faw dañ ko ci war a tudd ak sëñ Moussa Ñaan mi nga xam ne moo yor waañ xam ne moom bu école di ubbi fii lañ koy fekk mu ñuy dem fii lañ koy bàyyi du am vacances kon xëy na liggéey bi ñun dañ ciy fés nii rek nii waaye dëgg dëgg dëgg nag liggéey bi am nañu ci sonn nag waaw am nañu ci sonn loolu te gëm ko bëgg ko di ko doxe di ko waxe te bëgguñu cee feeñ ci dara ñoom ñi ngi fi jàngalekat yi moom laa wax léegi ba bàyyi ma jàng buñ koy wax mooy uuf mu benn xalqa di ko jàng waaw maay directeur des études nag maay saytu maay defar maay inscrire maay maay kii maay taxaw ak ñu ma ko àndal mm. waaye nag ñoom ñooy uuf xale di leen jàngal ku ci jàng mu rafet mokk seen jàmbaare bopp la doon mm-hmm. waaw loolu moom lu ma ta xam la ñu leen di sant ñoom jàngalekat yi yu góor yi ak yu jigéen yi mm-hmm. waaw sëñ Moustapha am na fi jàngalekat yi jigéen damay wax ne toujours jigéen ñoo fi fi ëpp ndax mm-hmm. sëñ Moustapha tam ci organisation bi ma doon wax ne base bi fii base bi lu pare la bu yàgg waaw base base daara ji pare woon na bu yàgg ci des lépp dañ koy yàkkale di yaatal di gën yàgg ci mbir mi di gën a xam di defaraat ku agsi defar soo liggéey sa morom agsi defar noonu la tëddi waaye dafa waxoon ne jigéen ñi lañuy jàngal ndax ay jigéen lañuy jàngal te rafet na lool enseignant yi nag wax dëgg yàlla ñu ci sant yàlla ndax jëloon nañ ci départ ba 27 ñaar fukk ak juróom-ñaar sëñ Moustapha loolu la jëloon ak ñun personnel direction nga xam ne xëy na ñett lañ muy fanweer waaye dem nañ ba léegi si euh, euh, jëlal nañ juróom-ñeenti enseignant wala fukk ak ñaar buñ ci boole ñeneen ñi ci des bu dee alxuraan bi juróom-ñeent ñoo xam ne ci daara ji lañ jàngee ba génne fi ñu jël jël leen ñu leen di ja di fi jàngale ñu leen di fay waaw dañoo dañoo mokkal jàng diine jàng xam-xam ñëwaat jàngale fi ba mokkal la fi ñu baree baree bare kon loolu mooy li nga xam ne mooy li am. voilà jërëjëf euh, soxna maam Awa Deme directrice des études euh, bu daara maam Diarra bi nga xam ne moo nekk fii ci Porokhane. te Cheikh euh, Moustapha Bassirou te xawaloon ko fi ci atum 2005 ñi nga xam ne ñoo fi jàngee di maam jaara yi lépp seriñ bi yoro ko boppam waaye it ànd ko ko taalibe yi ak mbooleem euh, ñi nga xam ne ñoo di daayira maam jaara ak fondation yi ak euh, ñi nga xam ne ay bonne volonté lañ saa su ne ñuy jëf ci li nga xam ne moo di daara ji li nekk émission spéciale bi ñu leen amaloon fii ci daara maam jaara bi lépp rek jëm ci waajal màggal gi nga xam ne mooy màggalu ko soxna Mariama Bousso Jaaratullaah ñu ñëwoon doon découvrir bërëb bi ak tuutànk yi nga xam ne ñu leen fi tàggat ñi fi mokkale loolu lépp ñu leeral ñu ko ñu koy santaat bu baax a baax moom soxna Mame Awa dem directrice des études di sant euh, tamit euh, sëriñ Abo Jaxate mi nga xam ne mooy directeur daara ji di sant mboolem personnel bi fi nekk ak képp koo xam ne jàppale nañu ci liggéey bi di sant suñuy cadreur Mountakha Ndiaye Gabon ak euh, Daouda Euh, di sant tamit mbokki téléspectateurs yi ñaan laat Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool tànd ak wér ba naal yeneen naal yu bëri yoo xamante ni dina ko ànd ak taalibe yi lépp fekkatu tal barkeb Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf